beneen bi ci des ci le ministre président de la république dafa ñëw Tivaouane gàmmu deux mille vingt deux Sénégal yëpp di ko déglu mu ne dinaa leen defal ISEP nee nañ ko jox terrain ñu jox ko cinq hectares sanc Pire depuis boobu ba léegi ñu ngi xaar gisuñu waxuñu defe naa yónnee naa la lettre depuis daaw mais amaguma réponse ba tey beneen bi ci def monsieur le ministre mooy Tivaouane dañ fa bëgg université parce que université El Hadj Malick lañ bëgg li tax ñu bëgg université bi dañu am hôpital hôpital bu ñu am hôpital quatre niveau xaw ma quatre niveau lañ koy wax xaw ma dañoo bëgg nag étudiants yi nga xam ne ñoom la ñuy affecté wala ñu nekk ci biir département bi au moins ñu am université bu ñuy jàngee. parce que ñun suñu université foofu dafa xaw a dafa xaw a manqué parce que dañu bari ay étudiants ISEP bi nag boo gisee ma koy gën a laaj mooy foofu ay industrie rek moo fa nekk te ñun amuñu dara lu technique c'est-à-dire amuñu benn institution technique bu beneen ministre bi ñëwee dinaa ko naka la ñuy def ba ñun ñu am lycée technique mais pour le moment ISEP bi comme président moo ñu ko dig ci kanamu sénégalais yépp dañoo bëgg ngeen dimbali ñu ren ngeen defal ñu ISEP bi loolu mooy li nga xamee ni moo gën a am moo gën a nekk farata li tax ma jël parole université bi nag dafa nekk loo xamee ni dafa war a am ndax nag bu dee jàng rek la ñuy wax alaaji Malick moo tax ñuy wax ndax li mu bind ak li mu jàngale bari na te daara yi fa nekk ak ña fa nekk di jàng ay borom xam-xam lañu bu ñu sañoon nag ñu am université boo xam ni day nekk filière parce nag ñu ngi commencé dugal arabisant wala arab yi ci biir université yi mais au moins wa nañ am bu xale yi génnee ñu am au moins ci université bu ñu mën a dem te li nga xam ne ñoom bind nañ ko nga xam ne ñu war ko jàngal nit ñi te nit ñi xamuñu ko moo ëpp li nga xam ne moom la xam ne moom lañ def loolu moo tax dañuy rafetlu université Touba ndax day tax ñu jàngale li sëñ bind nit ñi xam li mu bindoon lan la loolu la ñu bind bëgg suñu mag yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi li nga xam ne moom la El Hadj bind bëgg nañu ñu lépp ñu def ko mu nekk ci université xale yi di ko jàng di xam li ñu leen jàngal lu mu doon ak li ñu jàng lu mu doon parce que bu ñu demee ba di ko jàng dans les autres war nañ ko mun a jàngee nag ci université Sénégal université Caire booy boo fa demee fekk faay bindu Alaaji Malick yoo xam ne moom la ñu jàngale heure bi ñuy wax nii maa leen di gërëm di leen sant wasalaam. Merci beaucoup, honorable député. La parole sera au président.